góor baree ngi am ay soxna di doxaan dara waralu ko lu dañoo amul lu neex ci seen néegu sëy parce que yow mënoo gis jigéen bëgg ko takk ko ci faratas yàlla ak sunnas Muhammad lu ne nga def ko ci moom lu ne nga def ko ci moom andi ko sa biir kër yor ko teral ko yiir ko aar ko dëkkal ko dëkkoo ko te joxu la cër respecté wu la li nga bëgg ci moom mënoo koo am foo jaar di nga doxaan jigéen ñi baree nga ñaxtu naan suñu jëkkër defaluñu dara defaluñu dara dara waralu ko lu seen jëkkër yi bëgg moom ngeen deful góor bébé la ki ko yor di ko naxtaan di ko neexal kooku lay jox li mu moom li la war ci moom nag boo ko deful mu génn ci bi ci doxaan xale bu ndaw li mu la waroon a jox mu jox ko ko nga koy wër di ko jooytu ak di ko ñaxtu fekk yaa ko teg sa bopp respecté leen seen jëkkër yi ngeen téye seen sëy te xam ne jamono bi ñu nekk nii góor yombatul de te góor ñi fi mu ne nii bala ñoo takkati kenn sax dañuy xool bu baax a baax ki ñuy takk ba xam moom mooy kan dañuy xool bu baax xam ki ñuy takk dina leen mën a sëyal sëy bu baax góor yu baree ngi am ay soxna di doxaan dara waralu ko lu dul dañoo amulu lu neex ci seen néegu sëy parce que yow mënoo gis jigéen bëgg ko takk ko ci faratas yàlla ak sunnas Muhammad lu ne nga def ko ci moom lu ne nga daj ko ci moom andi ko sa biir kër yor ko teral ko yiir ko aar ko dëkkal ko dëkkoo ko te joxu la cër respecté wu la li nga bëgg ci moom mënoo koo am foo jaar di nga doxaan jigéen ñu baree nga ñaxtu naan suñu jëkkër defaluñu dara defaluñu dara dara waralu ko lu seen jëkkër yi bëgg moom ngeen deful góor bébé la ki ko yor di ko naxtaan di ko neexal kooku lay jox li mu moom li la war ci moom nag boo ko deful mu génn ci bi ci doxaan xale bu ndaw lim la waroon a jox mu jox ko ko nga koy wër di ko jooytu ak di ko ñaxtu fekk yaa ko teg sa bopp respecté leen seen jëkkër yi ngeen téye seen sëy te xam ne jamono bi ñu nekk nii góor yombatul de te góor ñi fi mu ne nii bala ñoo takkati kenn sax dañuy xool bu baax a baax ki ñuy takk ba xam moom mooy kan dañu xool bu baax ba xam ki ñuy takk dina leen mën a sëyal sëy bu baax